jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di net bi TV li gën a fës ci bopp yi nag dañu koy doo rek directeur le quotidien national di Yaxam mbay daal di nay feeñal boppam rek ginnaaw rek ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy naataango moo ne ne nag dafa daal di réer mër moom ci jëm boppam rek daal di nay feeñalaat xar-xaranam ñeel fonction yi nga xamante ne rek moom la doon liggéey ginnaaw absence bu yàgg mi nga xamante ne rek jaaxaloon nañu bëri rawatina nag ñenn ci personnel bi dañoo daal di woon dëggal rek que ne moom ci jëmmi boppam fayul leen ba noppi nag ñu daal di koy eh, soupçonné ci yenn jëf yi moom nag ginnaaw bu mu jugee ko ci boobu les postes sans mu compte kenn rek daal na bi nga ni rek daal dina koy feeñ moom Yaxam Mbaye mu tombel nag visite bi nga xamante ne eh, kii di Alioune Sall nekk nag nouveau ministre de la communication des télécommunications et du numérique ginnaaw rek bi mu doon def contagam bu njëkk ak professionnel secteur boobule ci boobule rencontre plainte nag doon na am foofa ca lokko bu Le Soleil mi nga xamante ne rek dafa daal di wane wanewaat retour kii di Yaxam mbay ci vie publique ak li nga xamante ne rek moom mooy ci wàllu professionnalisme ginnaaw rek moom mi nga xamante ne rek moom Yaxam Mbaye nekkoon na koo xamante ne rek ku dëgër lool la woon ginnaaw bi fi nguuru ko ginnaaw gu fi président de la république Macky Sall nekkee woon ba tey rek ginnaaw nag arrivé ki nga xamante ne rek moom mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci bopp nguur gi mel na ni daal ab coppite dina am am ci poste direction yi ñeel nag naka lañ koy observé waaye nag tabb bi nga xamante ni rek daal di nañ koy tabb kii di Pape Alé Niang ci bopp rajo télévision sénégalais bi mu nekk contexte politique boo xamante ne rek bu ñu muytulee nag kii di Yaxam Mbaye dinañu ko remplacer ci lu yàggul dara ginnaaw autorité yeesu ñoom li ñu bëgg mooy koo xamante ne ku fidèle la ku loyal te nag koo xamante ne rek dina pare nag pour yor yenn poste stratégique yi ak lépp lu mu ci mënti doon lekk dinañ leen ko toppandil jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir mën a amaat yeneen xibaar